ni ñu ko amale woon foofu ca bambay ak ca Diourbel département bu Mbacké ñoom it jot nañ seen formation ci BMC bi ak marketing digital bi ONG Concept di amal ci ay éléments. dañu boole anciens éléments ak nouveaux éléments pour defal renforcement de capacité si li nga xamanta mooy BMC ak aussi nan nañuy def ba péréniner seen njaayam fourne jàmbaar bi loolu nag BMC dafa nekk outil boo xamante ni ñoom bu demee ba comprendre ko la say la njëriñ dinañ xam lan la. la leen di la leen gàllankoor danañ xam fan la naka nañ siy jóge ngir wut wut si ay saafara aussi danañ xam nak naka nañ si doxee. bu njëkk ba 4 4P la woon tey dina leen yóbbu ba 7P si biir 7P digitalisation day génn léegi nit ki dafa jartal nga xam li ñu naan digitalisation pour nga xam yow li nga li nga xamante yaa ko moom sa sa téléphone bopp nan ngay def ba yaatal sa njaay bi def si sa euh, li nga xam mooy marketing ba ñëpp xam ko. kon day jaar kon digitalisation ñu former leen. département bu Mbacké ñoom it am nañu ay kangam ci liggéey bi ñu bari ci ñoom ay référence lañu ci njaay mi ngir succès wala bokk ndam li ñu ci am. comme que man affaire furna yi moom xawma ci woon dara ci laa dem ci terrain bi wàcc wax ak jigéen ñi am ay commande ci laa am commande vingt neuf mu amee vingt neuf mënuma koo génne xaw ma nu may def heure bu ma laaj ko ñoom deene fekk boobu kit yi génn gut ci laa jël sama fond. uniquement cent cinquante mille dugal ko ñu indil ma samay fourne ma livré ko depuis boobu ba tey nag moom alhamdulilah ñun ñoo ngi jaay di dem ci jigéen ñi di dem ci góor ñi di dem ci commerçant yi di leen di leen di leen di ay commande di livrer loolu daal la ñuy def ak tamit euh, plus daf ma fekkoon may liggéey nekk commerçante di jaay am benn place boo xam ne place su neex soow la ñuy jaay dañuy def caakri laax ca cere yooyu yëpp dañ koy jaay. bunt bi ma ci gis mu amal ma njariñ mooy ne xool qualité bu baax rek bañ a def fu ne rek ku indi fourne rek ne la ma jox la nga ne déedéet damay xool yi nga xam mooy gën a nekk qualité ndax client yi dañuy taamu qualité bi soo leen jaayee lu baax fuñ toll heure buñ soxlaa dañuy ñëwaat mais soo leen jaayee yoo xam ne nii demewul noonu buñ soxlaatee du loolu gis dañuy dem uti feneen. motax qualité bi dañuy tamu di set bi nga xamne mo gëna nek qualité rek ñu di ko jox client yi da ci am solo torop daal prix bi ak yooyu yëpp amul solo li gëna am solo moy qualité bi rek daal moom moo ci gëna am importance ak di len expliquer nim démé ak ni ñu koy utiliser ak limi bañ ak yoy rek comme ñu bañ di jot di ko tooyal wala di ko wàcc ci bit muy fanaan wala yu démé non daal di la expliquer rek ni ñu koy utiliser rek ba xam dañ danañ ko mëna a mëna yag a yàgg daal. lépp mu nekké commerçant ba légui ma ngi ci fourne yi waaw ba dugg ci commerce ba paré door nek ci fourné wa sama secret euh xam xam matière bi d'abord limay jaay premièrement en plus xam ni ma koy jaayee euh, te aussi djégé tamit ni ma ko war jaay loolu mooy secret bi. xam limay jaay moy xam qualité bi may jaay limay jaay produit bi may jaay qualité bi mu am manam moy ci weñ bi moy ci fourno bi moy ci weñ bi moy ci ban bi moy ci li parce que ban bi ak yenen ban yi bokul dafa am bande de qualité te ñun suñu fourneau yi bande de qualité lañ ko liggéeyee te en même temps weñ yiñ ko liggéeyee weñ yu baax la euh, xam fu ma koy jaayee tamit mooy ñi nga xam ne dañu am besoin bi dañ ko soxla te am tam tamit bëgg ko employé si seen euh, biir kër bëgg ko utiliser du moins seen biir kër am ci soxla lool léegi ñooñu laay gën a ciblé. jaay naa ci ba gis si sama bopp am ci ay revenu yoo xam ne même si tabaski bi rek jënd naa si ay daal jënd ay sakos ay affaire yu xale wala affaire yu jigéen daal jaayaat ko ci événement bi te gis naa ci benn réussit bu baax créé naa ci beneen emploi beneen emploi bi mooy commerce comme jaay ay dàll ay chaîne chaine en plaqué wala ay ay kii ay yére xale daal soixante-dix mille laa démarré te soixante-dix mille boobu sama bénéfice la ci fourneau yi ma ko dajale won après bi événement bi jeyet c'est may jaay di amat bénéfice di continuer di jënd di jaayat ba fi mu ne ngi am ay commande robb yo xam dama ko wara def té loolu yëpp nak ci bénéfice fourne yi laa ko amé benen ban yoon lañu jaax ñom élémé yi ba ku leen tuddu tay tuddu success story wala bok ndam ci liggéey bi formatrice bi delu ci na ci li ñu mel. yoon bi ñu jaar moy que ñom déjà comme ñu ma doon wax sank rek ci quartier de bon entrepreneur dañoo dañoo bëgg li ñi def ko pare gëm seen bop ndax amna ci ko xamne ne déjà comme euh, Adama mom déjà fourno yi ku ne xamne dans le département de Mbacké commerçant yi en général euh, li ñi jaay fourno ci marché bi dafa dafa yomb trop ñom sax dañuy plaindre ci lolu c'est-à-dire la différence prix bi ñi ñom même 250 sax dañuy jaay même mom duñu gis ne euh, ci commencement bi sax bi len projet bi waré jox kit de démarrage mom elle n'a pas attendu kit bi dafa jël xaalisam def commande de vingt et quelques na commencé ay di jaay léegi moom nee naa ni muy ni muy jaayee mooy nan mooy lu koy moom du jaay sax biir Mbàkke day dem ci village environnant yi ci Mbàkke moom foofu lay livrer ay fourneaux di leen ko di leen ko jaay kooku daal moom gis naa ne moom euh, noonu la def ba réussir ay ay bantam ana looy conseil éléments yi teen defal ci liggéey bi ngeen ñu am succès ci njaay mi xanaa ñu gën a am technique de vente am technique de vente moy fas yéene dugg ci marché bi euh, rechercher des clients pour que ñu mëna jaay parce que tamit tok fi nga tok rek bëgg jaay tamit mën ta nekk il faut que ñu jóg def ay démarches wut ay clients pour que seen jaay yi mën a s'accroître mëna mëna mëna a bari. yow yow muy jaay ci boppam yow muy jaay fourneau gis nga ne fourneau yi par exemple xëy euh, pour ñu école ko day jafe. yeneen produit nan nga def ba boole ko si moo xam ne fekk fekkee da nga si boole ay këriñ moo xam nañ si boole ay vaisselle vaisselle yaatu na la moo xam nañ si boole ay and yow daal yow yow mu nga xamante ne xam nga sa koñ war ngaa mën xam ginnaaw fourne yi lan lañ gën a soxla loo xamante ne mën naa ànd fourne nga boole ko si élément di ay bati anglais di wund last mile entrepreneur di tekki ci français les entrepreneurs de dernier kilomètre ñi mën a yóbbu fourne yi fépp ci biir département yi ak lu Babacar Sall doon ci jokkoo ak ci CFP bu Mbàkke Bawol pour l'ONG Concepts